salaamaaleykum chers internautes yéen ñi ñuy suivre suñu différentes plateformes ñu ngi fii tey ci saraxu Aziz Dabala waaw muy information boo xamante ne nii jot na fee wàcc léegi nii léegi léegi léegi gars yi nekk dans l'émotion yàlla def na ni gars yi jàpp nañ ki nga xamante ne nii moo def mbir mi te ñu ngi ko jàppee fee ci Touba précisément à Janatu waaw waa ji nag nee nañ ab maçon la expliqué la lu bëri ci par rapport ak fee ñu ñëw nag fekk fi gars yi. ñi ngi ci moment émouvant métti na mais tamit ouf de soulagement la parce que mbir mi doy na waar doy waar boo xamante ne nii ku si nekk rek takkoon nga ci ku ci nekk rek yaa ngi doon yaakaar ne yow la ku ci nekk rek yaa ngi doon xoolee sa bëtu morom yaa ko rey yaa rey mais yàlla na nit na lépp dëgg gi feeñ na jàpp nañ ki nga xamante ne nii moo def ñaaw ñaawteef bi dañuy ñaan yàlla <coughs> lii yàlla na fi gëj. yàlla na fi géej Aziz mi nga xamante ne nii gaañ na ko gaañu na yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yàlla na yàlla may mbokkam ak famem ak njabootam xolub muñ waaw jër ngeen jëf ñu ngi fi en direct euh, ginnaaw raay précisément ci saraxu Aziz Dabala waaw biñ ñoo yegg si takk ñu tombeek information bi waaw en suuf suuf ouf de soulagement parce que ñi fi nekk ñëpp bëri woon na ñoo xamante ne nii ku nekk si ñoom ñu ngi la doon xoolee bëtu yaa def lii yaa def lee mu bëri woon ci tiktok bi ñoo xamante ne nii ñu ngi doon yàq ay doomu doomu jàmbur te xamul ñu leen woon dara mais nag yàlla def na ba nit na lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp kon dañuy def lu dul sant waaw dañuy def lu dul sant quoi parce que lu dul dëgg rek du yàgg lu dul dëgg du yàgg ñoom biñ defee biñ génnee information bi ku nekk si ñoom yaa ngi tëb di dal parce que ouf de soulagement la si ñoom yëmbul woon si ñoom parce que ku si nekk rek jàppoon nañ ne même boo deful takkee nga ci waaw ku ci mel ni Nabou Leye bëri woon na fii waaw ku ci mel ni euh, Ndey Yirim Samba Nguer bëri woon na ñoo xamante ne nii limoon nañ la ci affaire yi laay ñaa naan vidéo bi li mu wax fee li mu wax fële bokkul moo tax bàyyi leen di juger doomu aadama yi te xamoo leen loolu la ñuy waxaat bàyyi leen di juger doomu aadama yi te xamoo leen parce que mbir mi mbir mi mbiru yoon la te xam nañ efficacité suñu police nationale. xam nañ efficacité suñu gendarmerie nationale. xam nañ efficacité suñu enquêteurs yi kon nañ leen di bàyyi ñoom ñuy def liggéeyam ñu bañ di tuumaal kenn di wax kenn lu ñaaw parce que amaana tey am na fu ñu doon yegg rek mbir mi day jaxasoo. parce que bëri na ñu fi doon tuumaal tey bu yàlla defoon dëgg gi feeñul. dootu ñu xajati fenn parce que bët boobu lañ leen di xoolee. loolu ñuy saluer ñi nga xam ne nii mooy suñu force de l'ordre ak ah. mhm. ñi nga xam ne nii ñoo jëloon enquête bi. Mhm. parce que def nañ ko ak objectivité. parce que mhm. am na fu ngay toll bu pënd bi jugee rek. Mhm. lépp wuri uh-huh. nga am na am na ku ko waxoon nee naa ko li waa TikTok bi di def. adduna du yàgg ba enquêteurs yi bàyyi ci xel. parce que ñoom bu ñu demee bay topp ay ay TikTok pour am lu leen leer ci ay enquete mhm. man sama di que ne dañoo raté seen vocation. kon ñoom concentré wu nañ ci l'objectif concentré wu nañ ci li leen war. yàlla niital na leen lépp leer na. kon dañuy sant yàlla waaw. laay fàtte fàtte. gis nga ñoo ngi gisandoo loolu. neel neel neel bi ñëw sarax bi. Mhm. waaw ku ñu jàpp nag ñu ne moom moo moom moo rey mi ngi tudd Mamadou Lamine Diaw ñu jàppee ko fële ci Touba si précisément jënd ko waaw mi ngi noonu gis nga xaritu Aziz Dabala yee noonu toog waaw depuis bu ñu yégee ni jàpp nañu waa ji nga xam ne ni moom moo rey Aziz Dabala boobu ba léegi maanaam kenn toogagul gis nga. ñu day ñëpp jug gi suñu yaay ji nag wante xam naa ne am na lu ko métti di ko masawu bu baax a baax nekk benn de soulagement comme ni ñu ko waxee woon sànq rek parce que soulagé na ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ba léegi ñu leen di tudd saraf bi dana doon saraf bu doy waar en ah. troisième jour jàpp ki nga xam ne ni moom moo moom mooy faat ci li xam ne moom la ñu naan Bala ak ah, ak Wally. doon day doy waar day doy waar parce que da fekkoon ci njàqin. Mhm. da fekkoon ci tiis da fekkoon ci naqar da fekkoon ci ku nekk di di yaakaar ni à tout moment mën na la parce que mbiru kirim dafa doy waar. dëgg la même boo defut sax da jege nit yow sa bopp dina tiit. Mhm. dogalee tey jii loolu am de soulagement parce fiy ñëw gëj naa mhm. euh, lii fi ñëw la parce que ku nekk dañ ko si tuddoon gis nga ah. ngi nii ndey gay ngi ne le ñoom laay ña waaw yenn gars yi nga xam ne nii tuddoon nañ la si kii nga xam ne borom tent bi gars yi ne leen dañ doon daf lépp doy na war daal ngay am nit ñi